maa ngi waajal aussi sama album maa ngi waajal ay événement événement boo xam ne sama anniversaire lay doon incha allah en décembre mën na doon grand théâtre mën na doon King Fat Palace mën na doon euh, si chapiteau bi mën na doon en tout cas daal lu classe laa bëgg loo xam ne innové def leneen loo xam ne euh, sénégalais yi mosuñu see teg bët je pense que loolu dafa am solo tamit xam nga rek euh, musique sénégalaise dafa xaw doy waar ñun producteurs yi dañuy tëpp ñoo ngi ci yeneen dëkk yi boo xoolee lu si mel ni ay Mali Guinée foofu leen nekk euh, parce que y a une différence de musique boo xam ne bon on comprend pas et euh, il faut juste que ñu gën a xool suñu musique pour que nga xam ne euh, dinañ motiver producteurs yi nekk dans le monde entier mën a teew si fii Sénégal jël yi nga xam ne mooy ñooy jeunes yi pour mën leen exploité bu baax a baax a baax. Euh, xam nga man nag euh, côté boobu cet daf ma ci gaawee ko <laughs> parce que xam nga euh, je suis un dama nekk nit koo xam ne pour ma dund ak jigéen lu yàgg dafay xaw a metti ah mës naa ko am nag dund ak jigéen lu yàgg mais jamono jii ni pour ma dund ci gën yak day bet parce que euh, je euh, sama liggéey la gëna a ci kanam quoi en fait hmm, sama li sama liggéey dal la gëna a ci kanam que affaire euh, relation amoureuse et tout mais gor là aussi non succès non non non non man soxna si man man succès man gisuma succès yalla xam na ni gisuma succès pour man succès ñewugul sax yalla xamna lolu man xalatuma sax que ni euh, parfois ni laay euh, ni ma solo ni lay njaabee ni dem euh, sama gaay yi dem fu nek xam nga rien n'a changé chez moi. xam nga la moom ma sauvé damaa télé, a télé li ma sauver moy que ni man dew ma ba mag rek génn télé. non non non dama nek lu touti commencé génn télé di gis sama bopp. Euh, loolu moo tax nag euh, xam naa que ni succès moom man sentiruma ko sincèrement sentiruma sentiruma benn succès tey yàlla bu ma ko mës a sentir non non yaakaaru musuma mu mu mun maa jaaxal parce que euh, tamit dama nekk ci kërum artiste këru kër bu mag boo xam ne artiste bu nekk jaar na fi artiste bu nekk gis naa artiste bu dem ca kaw wàcc suuf façon bu nekk gis naa ko sama nekk sama sama papa nag nekkoon manager nekkoon koo xam ne tamit ku ku ku ku ku ku xamoon artiste ku mënoon euh, mbirum artiste bëri na yu ma doon sol yi ma doon wax samay nopp may dégg et sant yàlla suñu borom tamit ba nga xam ne man tamit euh, xam naa tamit fi nga xam ne foofu laa war a teg suma tànketu mais <laughs> succès daal jaruta jaruta kii quoi waaw jaruta na mo sincèrement no non non bu ñu jàpp loolu de <laughs> bu leen mës a jàpp loolu de maa ngi ci dara <laughs>